ñii ngi fii ci marché gaar bi nekk ci diggu xolu Touba bokk ci marché yi nga xam ne nag moo gën mag mu nekk nag marché boo xam ne ñi ngi ko sanc ci atum 2004 Serigne Saliou Mbacke kenn ci njabootu Serigne Touba gi moo sampoon bile marché nekk nag marché boo xam ne bari na loo xam ne jëm na ci wàllu jaay jënd askan wi dañuy bàyyee fu nekk ngir ñëw fii ci marché gaar bi rawati nag bu dee lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu légumes yi nga xam ne nag ñi ngi koy jënd ak jaayaat ci dëkk bu sell bii di Touba bokk na ci marché yi nga xam ne nag moo ci gën a fës maanaam li nga xam ne moo tax mu jóg moom mu ngi doo dox. ndax fii ci Sénégal gii nu nekk nii waxumala la Dakar de marché bu toll ni moom amu fi. ndax cantine yi dong nekk na ñaari junniy cantine ak juróom-ñaar téeméer sans compter liñ ci tegaat muy miiri ndox yeeg ak maal yeeg yooyu kon loolu gisuñu gisuñu ko fenn ci Sénégal waxuma la fii ci Touba maam mbooloo mi fi nekk daanaka demee noonu ndax mboolem fu ñuy jaayee lujum. ci Sénégal bari na ñoo xam ne fii lañ ko fi jëlee si li fi ñëwit maanaam xëjul fenn te dara du fi fanaan lu fi ñëwit du fi yandu njaay mi nag di tàmbali suba teel daanaka ci fajarteel njënd meeg njaay mi ñu tàmbali ci bile marché waaye nag gannaaw dayoo ba am solo bi nga xam ne marché gaar bu mag bii am na ko ci dëkk bi seen bi di Touba waaye itam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu koom-koom mu koy dugal ci dëkk bi jii la jaaykat di ci yor seen ak njaboot ñëw te ñi fi ñëw ñëpp kenn ku ci nekk da nga fi sàkku addiya lu ci biir dëkk bi lañ ko am lu ñu amit ci biir dëkk bi lay am ay taalibe Sëriñ Tuubaa la ñuy liggéey di jëme ci suñu njaboot bu ñu sañoon nag ñoom ñu jàppale ñoom ñi la yàlla teg ci kaw ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax. bëri ay jafe-jafe yoo xam ne nag bile marché ñi ngi a bi ñu dëggal lu ni mel. wóorul moom ndax fan yee ca ginnaaw am na ñun fi dogale a jug ñimeetu ñoo teel a jóg su ko defee suñu liggéey bi yëpp taar de ñu ci mën a dimbali daal fu mën sañoon ñu yokkal ñu ko bu baax. ngir firnde seen i kàddu daanaka néew na ñu toog ay bés bu nekk te dégguñ ay place yoo xam ne dañu koo dajji bu ñu sukkandikoo ci sëriñ bi la bërëb mooy làqukaay yu defkatu ñaawteef. sama place maanaam maanaam daj woon na ko loolu nag maanaam. ci lañ ma woo bi ma ñëw wax dëgg fa la ma rëñ na bagage bépp daanaka. ñu dajji ko. Mm, dajji nañ ko yëpp te ba léegi mujj fenn. te ba léegi maanaam maanaam mujj fenn. Mm. kuñ ci mën a dimbali. nga ñu ciy dimbali. maanaam maanaam sëñ Muntaxa ak sëñ Abdou Lahad Ka mboolem ñëpp rek moom ku ci mën a jàpp. donc sàkk maanaam maanaam nga ñu ciy dimbali. bu weesoo loolu itam ñuy jànkonteel yeneen i jafe-jafe xam ne jëm na ci wàllu mbalit bi bu tawee itam marché bi kenn du fi mën a jaar délégué ci marché bi nag dikk ci tolluwaayu marché bi waaye itam di sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa yi ñu daal leen di taxaw ci marché bii nga xam ne amuñu leneen lu dul moom. des na itam mbalit mi. maanaam mbay moom bari na ci biir maam loolu nag li ko bari moom li ci ëpp ci nit ñi la. waaw ñoo deful li ñu war a def ndax dañoo waroon a takku maanaam suñu amee lu mat ñaari ajjuma ñett maanaam ñëpp bàyyi li ñuy def anandoo mbay mi jëm koo génne dégg nga wut fu ñu ko yóbbu waaye loolu moom amut léegi demoon nañ ba dañu doon dañ doon jël ay saret dégg nga maam di leen fay xaalis bu du jeex di ñu jël mbalim di ko génne ba mu set waaye bi ñu waxee itam ba tey nit ñi maanaam li leen mën a teg caw yoon daal moo di yoon. yoon waaw yoon daal moo mën a ñëw maanaam préfet jàppale ñu ñëw fii teg ay sart yu bees kenn kuy liggéey ku ne la ngay liggéey boo ciy wut looy yóbbu sa kër it wut looy defaree marché bi.